nañu jàpp ne li mu wax position li mu wax ci wala est-ce que mën nañu jàpp ne ñenn ñi ne def ñuy napp li mu postulé ci tweetam bi ma wax la leen rek yàlla suñu borom mooy maye d'abord dama su ma gërëmee samay waajur bu ñu posé question ci turu Macky balaa may tontu d'abord dama koy gërëm ndax nit bu dee am nañu gore di am nañu ba tey ngor gaa ngi fi Macky Sall yàllaa ma boole ak moom ma ñëw jël sama engagement bopp ci wàllu politique jublu ci moom dënk ko sama bopp ñu ànd fu ne ci opposition du ci biir réew mi du ci bitim réew ay Afrique centrale mën naa fa njëgg yóbbu les le cadres de l'APR di ko fa placer ñu jaar fu ne nag ci wàllu politique mais nag wax dégg yàlla Macky bépp coono ou engagement bi ma defoon ci moom fay na ma ba wis ma ba ma toll tey ci biir réew ñi mooy invité ay télévision ñenn ci askan bi toog di xaar lan laa war a wala war a wax wala li ma war a wax nii ci Macky Sall la jógee wala jógewul ci moom ci loo xam ne mën naa sax toog inventé man tamit ma am sama xalaatu bopp mais wax dëgg yàlla dama koy gërëm lool sax ndax wax dëgg yàlla man fabrication Macky Sall la du début à la fin ginnaaw samay waajur ñoom ci seen bopp du début à la fin ci wàllu parcours politique su ma su ma nee baas si ñije ci wàllu alquran Macky Sall la su ma nee saar bu mujjoo ci wàllu alquranil karim Macky Sall la ndax lépp ginnaaw yàlla moom te je suis reconnaissant et j'en suis très reconnaissant ba àdduna di tukki di jeex man xaw ma keneen dinaa reconnaître li Macky Sall def ci man ak lim ma defal lu Sénégalais yi mën a xam gis ko ci biti ak lu ñu mënul xam ti lu nëbb te du ma ko mën a wax ba ilaa yow mi kon nag man dama koy gërëm d'abord. bu loolu weesoo. bu loolu weesoo nag. mooy ci laaj li nga ma laaj. fan la jëm ak ñun. comment. fan la jëm ak ñun. lan mooy lan fan la jëm ak ñun mooy lan. nee président la le deux fu mu jëm ak yéen. mooy ku ñu dénk mandat baatu réew. bu jeexal c'est tout. Macky Sall Macky mënul jëm ak fenn ñun. Fodul il a été élu un président de la qui a jeexal man jeexal mandaam mooy gërëm sénégalais yi ñu ko ko dénkoon ak ñi nga xam ne sax bisu élection demu ñoon voté ko yépp mu gërëm leen génn dem defi leneen réew mi amaat beneen chef de l'État aussi bi koy dawal parce que moom il n'est pas le premier président de ce pays ki koy ut aussi du doon le dernier président de ce pays ki mu ut Ablaye Wade la tudd Abdoulaye nga wutu Abdou Diouf Abdou Diouf nga wutu Léopold Sédar Senghor c'est comme ça que fonctionne un pays donc Macky Sall fu mu jëm ak ñun mooy dañ ko dénkoon suñu réew ñun ñëpp ki ko vootaloon ak ku ko vootalul yëpp il est président de la République du Sénégal ñu war a jeexal mandat à quelques jours maintenant li ñu doon wax at ñaari at ñetti at juróomi at ba mu nekk ay weer ba mu nekk ay jours c'est comme ça que fonctionne noonu la àdduna di doxee